gannaaw bi ñu ñaanee yàlla yàlla may ñu ñu muurloo ouvrage bi eh, waaye ñu jaajëfal itam ñi nga xam ne ñoo jël initiative bi def ko ñu sante ko yàlla ndax ñun ñoo dëkk ci environnement bi eh, te ndox yi ñuy tuur fii ci conduite semaine de fer bi eh, am na ay agrément yu mu ñuy causé yu bëree bëri ndax xeet gi mënuñu ko moytu ndax ñun ñoo dëkk ci wet gi li ci des mooy itam nit ñi eh, dañuy faral di wax naan alalu buur la te alalu buur ñun ñooy buur parce que ñun ñoo ñun buur kon maa ngi dénk sama waa kër ci ñoom lay commencé ak ñi dëkk ci koñ bi yëpp ñu xam ne nag kii ouvrage bi lu précieux la lu am solo la lu baax la ci koñ bi kenn ku nekk na ko approprié wu def ko sa yëfi bopp sàmm ko def ci li nga ci war a def muy ndox kese ndox rek lañ leen laaj ne nañ ko ci def nañ ci def ndox te ñu entretenir ko ndax suñu la defalee lu mel nii eh, investissement la commune bi ko ci def alal la ci investir te alal ji suñu alal la commune bi suñu commune la waaye kër yi suñuy kër la kon war nañu def tout pour que ñu préserver ko ñu sàmm ko ah yàlla baax na amikan mi ngi nii gaare mi ngi nii taxaw sama gannaaw sama doom la mom mo gëna jégué parce que kër mo nekk ni sama kër mo nekk en face kër Ibrahim Dieng mo nekk en face kër Koumba Sow ah danañu waxtaan ak ñoom danañ leen sensibiliser pour que ñoom tam ñu bayyi xel ci ni eh, nit suñ la défalé lu baax pour yow la dang koy sam soko samé bu ëllëgé mu jëriñ la jëriñ sa njobot yal na leen yàlla fay Eh, maire bi nga xam ne moo jël initiative bi ak personnel am yal na yàlla sàmm leen yàlla dolli seen jàmm dolli seen sutura. tey yaakaar naa ne ay kàddu remerciement la ñuy def ak kàddu sensibilisation ndax euh, ONG bi nga xam ne mooy practical action donc ça fait des moments ñun jël nañu tàggat ñu organiser ñu ay équipe SAP système d'alerte précoce. nous ñu nous ñun dañuy intervenir si quartier bi en cas de danger muy inondation ak ak yeneen ak nag yeneen ak assainissement waaw si biir nak vraiment gis nañ ni practical action def nañ fi action yu bari ndax jox nañ ay moto pompe de telle sorte que tay bu inondation euh équipe SAP dina mëna intervenir intervenir euh, dégager ndox mi euh, pendant l'hivernage aussi les maisons impactées gis nañ ni kat ñoom ils ont été appuyés

ñuy ONC boo xam ne ku nekk xam na li nga xam ne moo leen tax a jóg ndax ñi ma jiitu sànq muy jibi jaar na ci action yi nga xam ne moom la ñu def ci dëkk bi kon duñ si jaaraat kon ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax commencé ko ci maire commencé ko ci Aliou ak Idrissa ak waa Croix-Rouge tamit ndax ñoom ñooy seen partenaire bi nga xam ne ñoom la ñu àndal di liggéeyandoo ak ñoom kon Croix-Rouge ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di wax ni population Médina Fall gis nañu action yi ngeen def ci Medina Fall yëpp ndax lu mat ñaari at yéen a ngi fi di liggéeyandoo ak noonu yaakaar naa ne lii mooy action bi mujj ngeen defal ñu ko ñun waa Medina Fall. kon ci turu Serigne Moustapha Lo muy délégué de quartier Medina Fall extension may euh, Medina Fall 1 may may doomam kon maa ngi teew ci turu Serigne Moustapha Lo di sant ñëpp di gërëm ñëpp day wax ni Moussa la maire sëriñ bi nee na mi ngi lay sant yit ci turu dëkk bi yëpp bàyyiwul kenn ndax lii moom ngeen ko defal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal suñu waajur yi nga xam ne moo njëkk a jël kàddu nag muy Baye Omar Ndiaye te ku ne xam na ne dëkk bi rek moo ko ñor ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko suñu kanam lool ak njabootam di sant jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk Medina Fall mën nañu kaa commencé ci jibi mii nga xam ne ak Baye Laat ñoo fi teew tey teewal ñëpp ñoom ñëpp a bëgg Medina Fall ta ñoom ñëpp it lu Medina Fall yëkkati it nañ ci dugal seen loxo nañ ci dugal seen tànk kon sëriñ bi nee na mi ngi leen sant yéen ñëpp bàyyiwul kenn tey ñaan yàlla suñu borom nag lii ngeen commencé ngeen continué ko ba yeneen yi nga xam ne manqué na fi tamit ngeen dimbali defal ñu ko ñoo ngi leen tàllal loxo daal ndax daal Medina Fall du fii rek moo ko soxla fu bëri soxla na ko ndax bi li amé ba tay ñu bëré ñu may wo téléphone ku nekk soxla sa buntu kër wala sa point bi nga xamni fa nga tek ah tay nak kàddu sante la ak kàddu tamit inigéré li nga xam tamit mom moo ñu fi tax dajja tay alu Aliou ñoo ngi leen di ñaanal di yebante seen kilifa ya. xam ngeen xamal leen wa waa na Fall dal contane nañ bu baaxa baax ñepp nak muy mag ak ndaw ak gone ak kilifa yépp contane nañ bayiwuñ kenn ah, ñaax suñu jigéen ñi tamit ndax Euh, sunu góor gi wax na ko léegi ndax ñoom bu ñu ko defee ñoom ñoo tax te it muy entretien bi tamit lu ci am solo la ndax ku ne xam na ne defar pisaar mën naa yomb waaye entretien bi moo jafe loolu nañ ci bàyyi wàlla xel bu baax a baax tey ñuy ñaan ONC bi tamit yëf yi gën a law ba foo xam ne rek yeyoon na ko ci Medina Fall ñu def fa pisaar ñu dem defal leen ko. tey lii ñu fi def amal na ko solo balaa loolu nag ñu njëkkee ci nuyoo sëñ Modou mi nga xamni ni fi téwal señ Amdi ñu ñëkke ci señ Amdi nuyu ko sargal ko mom mi nga xamni tay man nañu wax ni mo fi nekkal maire mo fi nekkal administration di doxale tamit doxalin bu rafet bu jek ku xam ay atam xam wërëdem xam responsabilité bi nekk ci mom te du ménager ben effort ci jamono bo xamé ni population bi soxla na dembu ci mujj démb ñu ngi am den dajé ca mairie ba yakarna 15 ba dix neuf heures tama nga toog di mag loolu rek firnde la ci moom yitteem euh, ku ne xam na ni jamono bi ni mu xate ci moom waaye daa bàyyi lépp ñëw toog fa ba dix neuf heures kon loolu ñun euh, xam nañu yitteem ci population bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax ci turam di ko sargal bu baax a baax a baax di nuyu suñu wayjur bi taxawoon léegi wax muy Pa Omar Ndiaye macha allah moom it di mag mu am solo koo xam ne yàgg na liggéey ci développement yàgg liggéey ci euh, encadré njaboot kon suñ ko fi fekk itam moom it mu ñëw taxaw taxaw bi mu taxaw danañ ko sant gërëm ko ñu gërëm aussi nuyu suñu jeunesse bii nga xam ni mooy ñoom laat ñoom seen taxawaay ñoom jibi wax dëgg yàlla délégué bés bu nekk daf ñuy wax taxawaay yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy def ci quartier bi bés bu nekk mu ñu koy jottali te loolu rek la soxla nag wax dëgg yàlla ku ne xam na ni communauté yi euh, mënuñu lépp mais am na ci loo xam ni population bi ñoo cay jàpp te ñoom yaakaar naa ni ni ñuy doxee xam nañu ni bu baax a baax am na rôle bu ñu ci war a joué moo tax loolu ñu ngi koy joué bu baax mairie baa ngi koy rafetlu beneen bi nag mooy lii su mënee am yaakaar naa euh, am na ku ci jàpp lépp lu ñu defal population bu Thiès Nord ak ku ko mën a def ak fu mu mën a jóge maire nga ko defal ndax lépp loo xam ne dafa jëm ci luy baaxal population bi lu leen di noppal rek mair la war kon keneen ku jóge feneen am ay xalaat wala am ay moyen di ko teg pour lo xam dafa jëm ci bien-être population bi ak seen dundin mëna ñong koku mer nga ko defal kon ci lolu lañuy saluer bu baax ak di sante bu baax suñu partenariat ak wa Practical Action ak wa Croix Rouge ñom nak ñoy ndey mbi liggéey maire bi deful lu dul nekk facilitateur par rapport population bi ak ak ak walu liggéey bi ànd ceeg ñom mais lepp ñom la ça aussi il faut que nga am honnêteté reconnaître ni ñoom ñoo yor seen financement yor seen lépp maire bi dafa ñëw accompagner leen sur le plan technique ak sur le plan population. kon nag maire nee na euh, practical action wax dëgg yàlla bi ñu amee partenariat ak ñoom ak léegi action yi ñuy teg yëpp macha allah bii moo ci mujj comme ni nga ko waxee quartier yëpp ñu ngi ciy intervenir ci domaine yëpp aussi ñu ngi intervenir te loolu itam wax dëgg yàlla lu soulager li ñu waroon def la ku xam na ni suñu ressources yi matewul pour li ñu bëgg def yëpp ci maire bi. bëgg ko deful population yi ñu def ko ku ne xam na ko même bu ñu amee yéene bi am xalaat bi am xam-xam bi am na ci loo xam ni mooyen yoo koy def disposé wul kon organisation ONG yi nga xam ni ñoom am nañu ay programme pour ñëw appuyer maire yi loolu ñoom suñu ko defee taxaw ko boobaa ak léegi toqiwuñu bàyyiwuñu am ci yoo xam ne sax ñun duñu xaar ñun ñu ñëw ci ñoom ñooy ñëw ci ñun kon loolu vraiment maire nee na euh, mu ngi koy mu ngi koy saluer à sa juste valeur kon ñu ngi leen di ñaanal bu a baax a baax a baax lu ñu mën rek ci organisation boobu bu déwénee ñu mën lu ko ëpp ba action bu ñu teg ren bu déwénee ñu teg yu ko ëpp en tout cas remerciement maire daal ci ñoom la jëm ndax ñoom ñoo waral lépp ñoom ñoo taxawu lépp muy waa Practical Action seen seen seen i responsable ak waa Croix-Rouge fu ñu leen interpellé fu ñu leen waxee ba danañ ñëw intervenir ci nu mu gën a rafetee te loolu itam population bi yëpp dañ koy saluer vraiment te loolu nag euh, nous som très reconnaissants ci loolu ñu ñaan rek partenariat boobu gën a continuer gën a yaatu ba ñu yeneen action topp ci ñu mun a nekk population bi. li ci des nag mooy nga xam ne moo jëm ci population bi comme ni ko délégué waxe euh, loolu moom euh, yaakaar naa ne am na ci loo xam ne sax jarto wax ndax ku gis lii liñ fi def def ko pour yéen nga xam ne tey da ngaa amoon jafe-jafe fooy tur sa ndox ñu ñëw defal la ko ci sawet yaakaar naa nag la ca des ca war koo ñoŋal ak war koo aar war koo toppatoo loolu yaakaar naa kooku jarul sax ñun ñi sonn ndax xam naa ne ñoom ñi dinañ ci taxaw jigéen ñi fi nekk daañ ci taxaw ñi fi dëkk daañ ci taxaw ba mu mën a organiser wu ba quand mu mucc ayib ci wàllu suivi bi ak niñ koy jëfandikoo loolu mooy projet bu ñu nekk bu ñu nekk di di diriger mi ngi tudd projet de résilience communautaire face aux inondations dans la commune de Thiès Nord mooy ànd tekku mbënn bi si commune Thiès Nord bi ñi ngi liggéey nag si ñeent ko gox Médina Fall Thiali Kër Maam El ak euh, ak Ngent projet bi commencé ko depuis 2021 d'ici si en partenariat avec Mairie wu Thiès Nord bi bu ñuy taxawu tam suñu activité depuis Tambalébi, depuis de bi tam comme activité moderne vraiment vraiment ñëw rencontre population yi xam seen café café, c'est aussi itam seen bëgg-bëgg si affaire ouvrage nous ñu mun que réaliser ak yooyu yëpp looloo indi daal lii nii euh, ouvrage bii nii ñu réaliser tey mooy puisard bi fii nii Médina mu nekk loo xam ne dafa ñoroon population bi te yàggoon leen di ko wax donc dem te ñu ñëw nag vraiment jàppale leen si def ko en partenariat ak mairie commune Thiès Nord bi ak aussi suñu partenaire euh, Croix-Rouge ak Malik Sow mi bu bu taxaw moom moo fi moom moo fi teewal waa Croix-Rouge de de Thiès donc di leen gërëm tamit ak ñoom depuis daaw ñi ngi ko ngi am benn liggéey bu am solo bu ñuy def ak ñoom te ñu ñuy taxaw vraiment si terrain bi moom di ñu jàppale suñu activité yëpp je pense que monsieur le maire tam waxon nako ko lu solo ouvrage entretien population parce que nous nga réaliser yenn ouvrage mais lu am pour que mu il tam vraiment population communauté ñu japp entretenir ouvrage tam lool continuer aussi rek ak communauté chef de quartier ak maire pour Croix-Rouge essayer d'aller moom di di def yenn ouvrage yo xamné dina tax vraiment euh, population yi gis ci sen nous et loo xamné dina wañi vraiment euh, yenn impact yi yo xamné ne mbënd inondation donc mën na leen jural donc comme nous ko nit ñi waxé donc euh, un petit rappel que ni ouvrage du du bi kessé hein il y a trois dans medina Fall amna fi amna côté Don Bosco amna côté côté Kër Pa Diagne donc tay ji bi né xamna inauguration symbolique bi lay nekk mais pour vous dire que practical action en partenariat avec la Croix-Rouge projet c'est d'accompagner les populations de zone nord et Inch'Allah, di ñaan dans tout Thiès donc euh, moi, waral parce que la gestion des eaux usées ça devient euh, problème là, le quartier parce que euh, donc pour jouer double rôle assainissement jouer jouer aussi pour arrêter surtout ça donc nous, nous

donc ñu ngi woo tout un chacun responsabilité individuelle ku ci nekk def ko sa yëfu bopp comme ça su ko defee muy pratical muy croix rouge muy la mairie parce que nous on est des auxiliaires des auxiliaires des pouvoirs publics lu ñuy def rek dañ koy defar population bi pour jàppale l' autorité administrative donc yéen tamit ñu ngi leen di woo ngeen jàpp si li ngeen si jàppee mooy lan ngeen fexe ba utiliser lii ba fexe ba sàmm ko ba mu gudd fan